masin ba joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilo jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fallilu yaaro ci mboolem law lu yow Fallilo yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejug mbindeef yi ay gi neex na mbàkke Cheikh Fallo fam nga jumaa ji xàll yoonu mbàkke sengul daagul dugal tey xulaay alaaji Fallo gi yéen ak sëriñ bi du ngeen réeru sëñ Fallilou du ngeen Cheikh Abdoul Karim ca lépp na liggéey sëñ bi rek ngeen moo tax ngeen di ko def kon nag wax du mën a ñàkk ci yéen ndax da ngeen di jëf kuy jëf lu baax boo ñëwee ñu seede ko sëriñ bi sant neen gërëm na leen mi ñaan ci barke Cheikh Modou Faral borom bis bi di ko ñaan ci barke Cheikh Cheikh Moustapha Fadilu mi yaay jam nga fa Makka fam nga ni lilaay alaaji Fallu yaa juboog lilaay am nga ngeen li yàlla hubbulaay fam nga ngeen li Bàmba hamdulaay sariyatu